ndax sa yar ak sa teggin mais duma ko voté parce que monsieur le ministre budget du jël mukk considération les immigrés duma la woteel monsieur le ministre duma la woteel ndax par la pure et simple raison que nekkoon nga fi ministre des infrastructures ma posé la le problème de trois kilomètres de route ci PAM dëkk bu ma cosaanoo ci ginnaaw Kébémer nga jël ko en considération dugal ko ci budget bi ma voteel la ko fee laa toog sama mbokk yépp ak may seetaan ñetti kilomètre de route ba nëga sottiwul monsieur le ministre duma la woteel ndax li tax duma la woteel loolu ci la bokk ndax Sénégal ci lañ bokk Sénégal amul ñaari Sénégal te amul ñaari sénégalité duma la ko wax commission ndax da nga koy faj damay ñëw ba fii ma jàkkaarloo ak fi ma jàkkaarloo woon ak samay mbokk ni leen ñetti kilomètre route yooyu dinañ ko fa def ma ne leen defu ko fa mi ngi nii toog tey nekk budget de premier ministre de budget duma ko woteel monsieur le ministre dafa am lu garaaw lu xew ci dëkk bi muy li nga xamante ne moom mooy enseignement religieux ñu gis sa budget enseignement am na ci doole ñuy sant ndax njàng bokk na ci xam-xam mais gis nañ ni bërki démb am na ñu ñu jàpp ñuy def maltraitement des enfants lépp wax ji nag jóge na fu nekk mais ñun li ñu gis rek la ñu mën a juger mooy loolu dama yaakaar ne gouvernement bi war na cee rester intransigeant ci décision parce que wax dëgg yàlla ay xale lu ñu dëng dëng dëng mérito wu ñu ñuy delloo gore man nag dama ko waxee ci instant wu yaay jur samay doom moi je pense que sama doom lu mu dëng-dëng duma ko jéng donc loolu nañu ma baal rek supporté wu ma ci àndu ma ci jàppalewu ma ci kenn gouvernement bi def ci war a jël ay mesures parce que loolu tamit Sénégal yépp la naqari monsieur le ministre ñu gis ni cette euh, euh, législature mooy législature u euh, teesante bi ak weerante monsieur le ministre bala ngeen a wax ci ki waxoon 10 millions yi wax leen ki ci ni bërki démb da ki génn di président groupe parlementaire bi passé dafa sàcc cent millions kon président groupe parlementaire am na cent millions ba mën koo sàcc ba man koo détourné yaa yor xaalis bi wax ñu président groupe parlementaire ñaata lay am te loolu jàpp naa ni gisuma mënuma ko confirmer mais tamit monsieur le ministre mënuma koo weddi ndax kookat saa yu waree wax su génnee moo fiy wax toj-toj yi kon jàppale ni loolu bi ne dem démb ni commission d'enquête parlementaire dañu koo suivre génn na bërki dem démb palais bind lettre boo xamante ne dal ca Macky ba ñëpp jàpp ci kon ma ragal ni kooku xëy na peut-être buy wax ci yéen la koy jëlee kon lii war naa leer monsieur le ministre moi je suis malade le pays est malade les gens sont malades les hôpitaux sont malades ñëpp sont malades monsieur le ministre sa budget bii ngay voté buñ la ko voté buñ la ko buñ la ko voté na nga jël en considération la santé monsieur le ministre la santé est religieusement malade ndax la santé kat liggéeykatu santé yi sonn nañ hôpital yi tilim na hôpital yi salte na lépp la nga xamante ne yaa ngi koy am bu leen ci fàtte monsieur le ministre nag dégg naa fi sànq ku wax ni y un collègue député qui ment j'aime bien son mensonge il est technique il est économique, il est franc, il a un franc parler que le Sénégal aime bien. C'est un jeune qui sort de l'ordinaire et sort de l'extraordinaire pour wone boppam kon jàpp naa ni kooku fenam dina ma neex maa bëgg fenam maa bëgg fenam ndax bu fekkente ne loolu rek mooy fen fekk fi sénégalais yi di metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi foofu la koy waxee monsieur le ministre euh, ma ñëw ci yow rek di wax ni euh, dëkk bi war nañoo jàpp ni Euh, dëkku corruption ak pauvreté la dëkk boo xamante ne la drogue fi waaja a sonn ndaxte léegi dañ koy jaay comme ni ñuy jaayee sunguf meew te nag port bi kenn dirigé wu ko yéen yéen a ko dirigé kon port bi monsieur le ministre lépp lu fi dugg xam ngeen fu mu jaar xam ngeen ki ko jël génne leen ko jàpp ko parce que kat lii raam ci ñëg bi la jëm te bu fa amee kër du fa dugg ma bëgg nag nga xam ne jéem